moo leen féewale ne Alioune Ndoye nee na amul lu muy lam-lame marché Sandaga ci moomeelu Dakar Plateau la bokk yoonu ville de Dakar ne ci loolee madame la maire Soham Wardini du ko dégg marché bu Sandaga patrimoine ville de Dakar la journal bi xamal ñu ne conseil municipal bu ville de Dakar ngémb nañu Soham Wardini takkal ko jàjji ngir mu ñàkkante ko ak Alioune Ndoye ba marché ba des ci patrimoine bu ville de Dakar Vox Populi tënkee ci ci mu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 def yaramu neen ñu naan ko CH Mendy l'observateur nee nañu ba ñu koy auditionné jooy na fa jooyu rëy NSIA assurance sante famille weer weerlee seen savon de Marseille Alfay Kinkeyri ah ah. waxtu xibaar yi ak El Hadj Ndiogou Diène El Hadj maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Georges di nuyu ñëpp euh, xibaar yi li ci gën a fës umma bi nekkati ci tiis ak wàccub liggéey Serigne Mansour Sall ne woon xalifa Serigne Abbas Sall bu Louga euh, bi que la wàcc liggéey ñu war ko denc ji ci suba gi. Euh, sëkk ya ñuy denc ñu faatu ca Pikine daan ci yokk ñeenti hectare njiitu réew bi ko kuréel gii di sama suuf ma yokk son almer xeex bu yàgg ba léegi réew mi di sargal tey élèves yi dàq jàng ci classe yu première ak terminale xew-xew concours général neexal ñu koy amal ci suba gi téeméer rek juróom-ñaari neexal ñu war ko jox lu toll ci juróom-ñeent fukk ak juróom-benn élève mu fekk nag mbir mu yéemee am ci école privée jazz school nekk ca Géejawaay amul benn at mi wala benn oral ci BFM bi ci lu mot juróom-ñetti fukki élèves yi doon def BFM kilifa yi jazz school ne dañ leen a xeex wante inspecteur bu Pikine Géejawaay leeral ni mbirum tricher moo ci am tàggat yaram football te la ñuy xam équipe yi war a daje ci Coupe d'Afrique bi di ñëw tirage bi di amee ca Cameroun ci ngoon gi dañu Rewmi jeexal ak li ci yenn kaay mu nekk li gën a fës ci xibaar yi ne suñu leen ci ay faram-fàcce Ndiogou Diène mbokki dellu di leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak rajo Futurs Médias eh, xibaaru suba gi dañ koy door ak tiis di wàccub liggéey eh, bu eh, Serigne Mansour Sall newoon xalifa njabootu Serigne Abbas Sall bu Louga moom nag biig la daal di wàcc liggéey fii ci Ndakaaru ñi nga xamante ne nag ñooy njaboot gi di indi seede ci moom nga xamante ne moom Serigne Mansour Sall depuis 1997 nekkoon ci jal bi nee na nekk na koo xamante ku bekku woon la te ku ragaloon suñu borom la doon liggéeyal suñu borom dañuy déglu seedey euh, Mansour Sall euh, di sëcc ci sëriñ Mansour Sall nekk tam turandoom ñu déglu ko ci micro Abdourahmane Poul Pouy dañuy njëkk a wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun di seede région de Louga ñàkk na kilifa bu mag Sénégal ñàkk nañu kilifa diine gu mag waaye itam tariqa tijaan ñàkk na kenn rawatina nag lislaam bi nga xam ni sëñ Mouhamadul Mansour Sall bii fi jóge moom la doon xëyal di ko gontal boo xoolee dundam gi yëpp laata muy jël xilaafa jëlee ba tey jii nga xam ni jóge na fi dundam gépp lim ko jeexal mooy diine jàngale lislaam mooy jàngale sàkku xam-xam mooy itam jaamu yàlla ak liggéey sëñ Mouhamadou Mansour Sall boo dégloo waxtaanam da ngay gis ni macha allah matoon na li mu doon mën na ko ci kër baayam matoon na ko ci bi waaye matoon na ko tamit ci diine ji mu nekkoon itam intellectuel bu mag boo xam ni diplômé am doctorat Sorbonne waaye itam fees dell ci xam-xamu baatin fees dell ci xam-xamu zahir nekkoon benn bilingue boo waxee français mu wax ceeg yow xam-xam bu leer boo waxee arabe itam itam mu tontu la ci tontu yu leer ba pare itam jàngale diine ci gën jaa rafetu ñu jàngale sellal sharia bi sellal tariqa bi sellal mbokk gi ci ni mu ko daan doxale nekkoon na kilifa diine boo xam ne itam wàllu tawxiid ñoroon na ko lool daa daan ñaax euh, jullit yi ngir ñu jaamu yàlla te bañ ko bokkaaleeg dara daan na def itam di sonn lool ngir xirtal boroom xam-xam yi ngir xirtal xirtal euh, nitu diine yi ñu jëfandikoo xam-xam yi nga xam ni moo nekk ci àddina bi ngir ndamul islaam mu nekkoon euh, Mansour Sall di sët nekk tam turandoowu Serigne Mouhamadou Mansour Sall bu luga xalifu njabootu Serigne Abba Sall wàcc liggéey nag bi que ñu war ko denc kon ji ci suba gi tey ji kon ca Louga di jàll njabootu Serigne Abba Sall yëpp di ñaanal Serigne Mansour Sall fa mu jom daqal ko fi mu jógee yàlla woy fa suuf si koom xare ko àjjana des fi nga xam te ne fa la ñuy denc ñu wàcc liggéey di nag sëg yi sëg yi nekk ca Pikine njiitu réew mi jël na dogal ne daañu ci yokk ñeenti hectares euh, loolu nag euh, nekkoon xeex bu yàgg boo xam te ni euh, kuréel gi di sama suuf ma yokk sama alme doon na ko xeex mu bëggoon nag fukki hectares ak ñaar yokk ko ci waaye ci mujjantal gi ñeenti hectares la ci njiitu réew mi jël dogal daal di ko ci yokk maire bu Pikine Abdoulaye Timbo moo ko xam ne démb bi muy janoog xibaar yi ci teewaayu ndongo ka léegi nag leer na ni armeeru jullit yu département bu Pikine daanu ko yaatal président de la république daal di wuyu nag ci sàkkutéefu waa collectif sama suuf ma yokk sama armeel waaye nag ci fukk hectare ak ñaar yi collectif bi doon laaj Macky Sall ñeent hectare kese la si daal dee joxe Ablaye Timbo mooy maire de la ville bu Pikine. cimetière yi ñu amoon Pikine ñun ñëpp xamoon nañ ko te yëgoon nañ ko waa Pikine jógoon gisoon ne cimetière yi fi mu toll fi nii fees na fees na ba nga xamante ne bi commencé woon nañu ñu taxawoon ci ñun ñëpp waxoon ko waaye ñu am ci mbégte gu rëy Macky Sall dafa jël benn décret boo xam ne dafa yokk ci cimetière yi 4 hectares supplémentaires muy benn décret d'attribution boo xam ne def na ko pour cause d'utilité publique ndaxte wane na ne daf fi nekk pour déglu askanam te lii mu def nii ci loolu lay dugg ci loolu la jublu. liggéeyu yaatal yi la armeer faw mu am ñu mu daal dee lor ndax tabax yi nekk nag ci pàkk bi nga xamante ni fa lañ ko war a def faaw naka ñu daal di koy daaneel Ablaye Timbo. fi mur bi war a jaar li jox noonu 4 hectares yi fi mu toll bu amee ñoo xamante ne dafa fekkoon ñu ne ca dañ leen fa yëkkati ndaxte état moom ko soxla am na kenn ku ñuy wax monsieur Ibrahima Khalil Fall lii ñuy def ci extension bi dafa laal angaram yooyu te dañ ko yëkkati je pense que lii ci war pour ñu yëkkati ko yëg na ko déjà maire de la ville de Pikine ni jël nañu nag seeni matuwaay ngir liggéey bi daal dee tàmbali balaa yàgg dara lu yàgg incha allah ñu dem ci liggéey bi nga xam ne moom mooy defar muru clôture bi quatre hectares yi dañ ko war a clôturer dinañ ci waxtaan ak waa collectif bi yëpp li ci war aussi ñu defandoo tabax nag armée yu jullit yu yees ca forêt classée bu mbaaw nekkul nag fi mu toll nii loo xamante ni dañu koy bandone ndongo ka Pikine rajo Futur Media. ndongo kaax ñi nga xamante ne ñooy doon xeex di waa eh, sama suma yokk sama almer diggee nag eh, addu ci mbir moomu gannaaw bu ñu waxtaanee seen biir ba noppi ñetti nit daal di ñàkk seen bakken ba ñu lebey ca tefes bu sali loolu démb la xaw am na keneen ko xamante ne jot na ci sowe waaye sonn lool ñi nga xamante ne ñoo lapp seen néew sapeur yi daal di koy jël ba daal di koy yóbbu eh, ci hôpital bu Grand Mbour 8h tegal juróom-ñaari minutes. RFM rajo askan wi. lu soxal njàng mi ak coow lu am ca Géejawaay gannaaw bi nga xamante ne benn école privée bu fa nekk di ko privé jazz school ñoom ci BFM bi juróom-ñetti candidat la ñu amoon waaye zéro at mi la ñu am kenn jàllul kenn deful oral di loo xamante ne nag ñoom eh, li ñu gis moo di ne dañ leen a xeex ci examen bi inspecteur d'académie bu Pikine Géejawaay daal di koy weddi ne kenn xeexu leen li am moo di ne dafa am ñeent ci candidat yoo xamante ne daleen leen jàppoon ndax dañ doon tricher eh, seen daal di gedd leerali Koumba Sandiane Faye ab lettre de contestation ngir ñaawlu ni résultat bi fi mu tëddee ci centre CEM euh, cité des enseignants lettre boobee jógee ci cours privé Jazz School présente lu ëpp juróom ñett fukku candidat ci l'examen BFEM yi te kenn jàll ci du d'office du second tour papa Mamadou Touré muy directeur école Jazz School. loolu ñëpp xam nañ ne mënul nekk quatre élèves ay élèves yu jàng neuf mois ñu sacrifié ndax lan ndax injustice ak discrimination fi ne nii wax nañ ko IEF nañ ko nee nañ doon ak histoire BFM Guédiawaye kenn mësul gis quatre-vingt-dix élèves def dans un kenn amul. boobu lépp lettre de contestation ñu xaatim ko gannaaw l'examen gi bu ñu sukkandikoo ci gaane seen njiite inspection d'académie bu Pikine Guédiawaye ab comité de vérification teg nañ ko ngir xool ni mbir moomee tëddee te ñoom seen liggéey lii la joxee ñi ngi naan juróom-ñett fukki candidat ñun li ñu décompté juróom fukki candidat ak juróom la seetlu nañ ne am na fukk ak benn yoo xamante ni égalé wuñu examen bi am na ñeent ñoo xamante ni dañu doon tricher ñu jàpp leen jébbal leen police police mu ngi def liggéeyam am na ci tamit euh, juróom-ñaar yoo xamante ni dañoo def benn épreuve bàyyi ñii def ñaari épreuve bàyyi donc au total ñeent fukk ak juróom candidat yooyu ñoom ñoo composé te bi ñu xoolaatee notes yi seetlu nañ ne kenn ci candidat yooyu amul kenn ci ñoom ko xamante ni am na notes yi nga xam ne permettre na ko sax mu dem deuxième tour ñun inspection d'académie muy IEF amuñu benn intérêt di échouer loo ay élèves au contraire bu élèves yi réussir en masse sax ñun dinañu arranger parce que suñu taux de réussite day yokk mais il faut que tamit réussite boobu ñu jaarale ko ci yoon. inspecteur Gana seen di leeral ne lettre de contestation boobee sax di circuler ci réseaux sociaux yi ba léegi nii du IA du IEF du ko jot te sax la jupp boobu lépp école li ko waral nañ ko seet feneen. Kumba Sanjaan Faye ñi ñoom lajj ñu waaye ndam lu rëy la ñu am seen wàllum njàng di élèves yi nga xam te ne ñoo war a am euh, li jaas ci concours général bi tey ji naka la ñuy jot neexal yooyu euh, ci xew-xew boo xam te ne ci suba gi lay am ci kanam tuuti ci bu 10 heures jotee euh, ci Grand Théâtre ci teewaay njiitu réew mi président Macky Sall ren nag toll nañu ci juróom-ñeent fukk juróom-benn élèves yoo xam te ne war nañoo jot lu toll ci téeméer ak juróom-ñaari neexal kiñ ci ràññee nag ne mooy meilleur élève ren ci concours général bi di Ndeye Awa Sarr d'élève classe première S2 ca Mariama Ba ren nag ki ñu bàyyi bi di concours général di ndam si yàlla professeur Souleymane a nekkoon fi recteur bu université Cheikh Anta Diop bu Dakar Amadou Sabar ba ci leeral. président Macky Sall dina def wala du def ñetteelu mandat lu ci mënti am coow li ñii di juriste yi ak acteur politique. ñu jégalu Amadou Sabar ba mu jëm kon ci concours général ñi nga xamante ne ñooy élèves yi dàq jàng ci classe première ak terminale ñu leen di jox seen neexal tey jii xew-xew bi di am ci kanam tuuti bu dix heures jotee ca Grand Théâtre ci teewaayu euh, président Macky Sall ñi nga xamante ne ñooy élèves yi toll ci ñeent fukk ak juróom benn leeral yeeg euh, Amadou Sabar ba élèves yi dàq jàng ci atum 2021 fii ci senegal la ñuy sargal tey ci talaata ji ci kanamu njiitu réew mi Macky Sall toll nañ ci juróom ñeent fukk ak juróom benn lauréat ñu fas yéene jot 107 distinction yoo xam ne ne juróom fukk yi ak juróom prix la ak 52 accessit ren ji nemmeeku nañ ne xale yu góor yi ñoo xaw a tuuti ñi nga xam ne ne ñooy jigéen ñi ñi nga xam ne ne ñooy élèves yi nekk série scientifique yi daanaka raafale nañ lépp ci li nga xam ne ne mooy ay raaya rawatina sax ci matière littéraire yi Ndeye Awa Sarr élève classe première S2 ca maison d'éducation Mariama Gorée moom mooy meilleur élève ci édition 2021 bi moom moomee moo jël premier prix allemand ak premier prix anglais ñaareelu place bi Khadijatou Koulibaly moo ko jël moom it nekk élève S1 ci maison d'éducation Mariama bu Gorée teg ci nekk élève bi gën a maanaam fu nekk mane na fa ba tax mu jël premier prix version grecque premier accessit version latine waaye tamit jël deuxième prix li nga xam ne ne mooy mathématique bi classe terminale yi nag raw gàddu ga waa njaareem ñoo ko jël muy Fatoumata Diop nekk bu Diourbel élève classe S1 moom moo jël premier prix citoyenneté droit de l'homme ak tamit li nga xam ne ne mooy ñaareelu accessible ci mathématique naam sax année scolaire bi xawoon na yëngu tuuti waaye ñi nga xam ne ne ñoo nekk ci école publique bi ñoo raw fuuf ci concours général édition bi concours général nga xam ne ne amul ci atum bi ñu génn li ko waral mooy mbas mi bu ñu méngalee li nga xam ne ne mooy résultat ren yi ak résultat yi gis nañ ne ci élève première a baax waaye nag 2019 ak 2021 bi li nga xam ne nag mooy édition bu concours général bi ñi ko duppee ki nga xam ne ne moo fi nekkoon recteur bu université Cheikh Anta Diop Ndakaaru di professeur Souleymane Niang pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. ñu wéy ci xibaar yi wax ci leneen di ay nit toll ci fukk ak ñaar yoo xam te ne dañu leen jàpp ndax tey dañu dugal seen loxo ci série bi di Cirque Noir ñenn ñi acteur lañu wante itam producteur bi ak scénariste bi Cirque Noir di nag benn fin boo xam ne dañ ci def nag su du noonu police ak daal di leen teg loxo gannaaw plainte boo xam te ne Jamra moo ko déposé woon ñoom ñooñ sax ñu jàpp suba ci àllarba ji leneen war a jébbalu procureur Mame Makhtar Gueye di ñaawlu la ñu def waaye itam di rafetlu taxawaay police ci mbir mi ñu ko moom Mame Makhtar Gueye imam bu Jamra ci Jokalante Makumba bi. ñoom dañu jàpp ni. comme que CNRA xañ na infidèle mu jàll ci télé yi. nee kon kattanu CNRA fa la yem. kon ñoom bu leen neexee dafiy ñaawteef ci yeneen plateforme yu demee ni YouTube ak euh, euh, Instagram. waaye dañu juum ndax bi ñu créé brigade de cybercriminalité yi charte yi dañu jox procureur sañ-sañ yaatu loolu nag moom la waa brigade de cybercriminalité jëfandikoo ñu ngi gërëm le commissaire Ali Kandé parce que ba ñu déposé suñu plainte yàggul deful sax juróom benni fan àllarba bii passé la ci fukki fan ak benn semaine bi jeexagul sax bés bi dellu seegul sax ñu teg leen loxo jàpp nañ producteur bi jàpp nañ scénariste bi jàpp fukki acteur góor ak jigéen ñu nekk ñoom ñëpp fukk ak ñaar incha allah bu ginnaaw suba àllarba ci lañ leen di présenter procureur bu ko defee procureur mooy joxe àtte ci ñoom ñuy profité nag lancer appel état bi état bi na sellal secteur bi parce que secteur bi ñu ci nekk léegi dootul ay professionnel de ay man ay homme d'affaires ñoo ci dugg pour di jàllale ay message yu bon mel ni film réewu leen di ci jàlloon ndaxam ne ay góor jigéen a ko joué wala di jàllale ay xeetu série yoo xam ne toroxal jigéen ngir am ci xaalis moo leen tax a jóg naka état bi segg ndax lu ko may mën na jur musiba te bu boobaa rëccu dana wees bu baax rek dina wees di kaddu yi ma Makhtar Gueye di ñaareelu njët ONG islamique bi di Jamra wax euh, ci coowal euh, marché Sandaga gi ñu war a defaraat euh, xëccoo diggante mairie Dakar ak mairie Dakar Plateau naka dem nag mairie bu dakaar nee neen ñoom mbir mi dañuy xeex ba mu sës te sax mbir mi dañ ko fas yéene ci yoon ndaxte li leen nar xañ di patron moom xam ne waa Dakar ñoo ko moom loolu duñ ko nangu xeex bi dañ koy di ci wootam waa Dakar yëpp maire bu Dakar ndaje boo xamante ni mairie bu ville de Dakar dañ ko amal jagleel ko mbirum Sandaga Ibrahima Diame. ci xol bu jeex tàkk la meeru Ndakaaru daal di addu ci daaneel bi ñuy daaneel bâtiment central bu marché Sandaga bi mu jàpp ne patrimoine ville de Dakar la ci réunion conseil municipal extraordinaire biñ ci doon amal Soham Wardini ñaawlu ko ba fu ñaawlu yem di interpellé nag askanu Ndakaaru mi mu jàpp ne alalam la ñuy yàqati. parce que mu bokk ci patrimoine ville de Dakar dama ko war défendre ci loolu laa taxaw taxawee ma ci leneen taxawee ma ci pour ñu jox ma marché dama ci taxaw parce que ci patrimoine ville de Dakar ci la bokk te man ma nekk maire bi ànd ak sama conseil municipal war nañu taxaw foo xam ne alalu Dakar ñu ngi koy nar a yàq nga taxaw défendre ko. maire bi di xam ne démarche yëpp def na ko waaye kenn dégluwu ko moo tax nag mu xamle ne mairie bu Ndakaaru du deltu gannaaw tey du deltu gannaaw ëllëg ci xeex bi lépp dina ci dem ci yoon ba mu jeex takk. jël sama volontaire yi yóbbu leen foofu jël ay nerf yi teg leen foofu ñu nekk fa di xeex bu ko defee ñu ne waaye politiciens yi comme que Sénégal état de droit la damay dem ci yoon avocat ville de Dakar yi danañ dem ci yoon lu ñu yoon may ñu jël waaye nag danañ taxaw xeex parce que loolu la ñuy fi taajee pour ñu défendre patrimoine Dakar ñi ngi liggéey lu ñu mën waaye bu ñu demee nag ba ñuy attaqué suñuy alal di ko jël par force di ko foqati ci sama loxo ci loxo conseil municipal bi taxaw maa ngi wax waa Ndakaaru seen alal la a am histoire boo teg. ginnaaw réunion bi nag conseil municipal bu ville bu Dakar délibéré na ngir may doole kii di maire bi mu fas yéene engagé xeex yépp ba lépp lu nga xamante ni patrimoine nu Ndakaaru la ñu mën koo sàmm. Ibrahima Diam ñu fàttali ne ci mbir moomu démb sax ci suba gi maire bu Dakar Plateau Alioune Ndoye moom tamit doon na ci janoog taskatu xibaar yi mu wax ne nag këyit moo leen jox sañ-sañu daal di defaraat marché boobu te këyit googu nag préfet bu Dakar moo ko signé woon depuis weeru juillet atum 2020 kon ñoom ñoo am sañ-sañu daal di defaraat marché sandega gi nga xam te ne kon jot ji jot na coow gu rëy diggante ville bu Dakar ak mairie Dakar Plateau. RFM Sport yegsi ci xibaaru tàggat yaram ànd ceeg Malal Junior Diagne Diagne maa ngi la nuyu. maa ngi la fay laaj Ndiob. noo ka doore. basket la ñoo tàmbalee ak euh, lu jëm si njoxeem euh, raaya réew mi gaynde Sénégal yi góor yi tey jii bu fukki waxtu jotee ca Dakar Arena lay doon ndax ñun dañoo nekk ci waajalum dem. ci euh, afro basket muy coup d'Afrique bu ñu jagleel basket si góor yi ñu ngi kaa tëggee ca réew euh, Rwanda ca dëkk bu ñu naan Kigali mooy seen capitale ñaar fan ak ñeent ci weer wii nu ne la yëf yi tàmbali ba juróomi fan ci weer wee di ñëw di euh, weerub sattumbar xale yi Sénégal yi nag nga xam ne Boniface Ndong moo leen tàggat nee na noonu kii di. Euh, Maxtaar Ba dina leen jox kon raay euh, réew mi ñoom nag bu ñu fi noppee daanu fi jógee ñaar fan ci weer wi bu nu yeggee lu benn fan ba ca topp mu ñaar fan ak ñaar danañu amal jongante xaritu seen diggante ak waa euh, Kenya ngir nag daal di mën a dugg si jongante bi. leen ñuy itam des ko waxtaanee tey jii mu jëm si Coupe d'Afrique football bi ñuy war a waajal ca Cameroun dëwën nee nañu ci ngoon gi bu juróomi waxtu jotee def lu ñu duppee tirage au sort ci wàllu poule ca palais des congrès bu Yaoundé Sénégal mi ngi ci chapeau 1. moom ak Cameroun mi daal xew mi Tunisie Algérie euh, Maroc ak euh, euh, Nigéria bu ñu defee nag tirage au sort bi dinañu xam seen adversaire waaye li mooy Sénégal moom mën naa am ci poulam équipe yi ñu nekk ci chapeau 2 ndax foofu Mali nga fa Côte d'Ivoire Égypte Ghana euh, ña nga ca googulee poule euh, chapeau 3 euh, ba nee nañu Mauritanie Guinée Bissau moo fa nekk ci chapeau beneen bi nag Gambie bi nga xam ne bi mooy gulet mooy dem ci Coupe d'Afrique des Nations phase finale ñoo fa daal di kon nekk jàmbaar équipe bu senegal la moo teewal réew mi ci Coupe CAF déwén ñi ngi waajal ndax dañu war a def tour préliminaire seen diggante benn équipe bu Gambie muy wax Wakiria AC ka nga xam nag mooy seen directeur technique nation directeur technique ñoom euh, mu ngi si di liggéey nee nañ fi mu toll nii xale yaa ngi ca sali di tàggatoo ko waaj ndax dañoo bañ dara bett leen kaddu yi Youssouf Bodian la ko dégg. bu wax dëgg yàlla xamuñu ko bu baax bon équipe Guinée la même football Guinée sax xamuñu ko bu baax bon euh, ñu on va découvrir peut-être xool ko ci ay vidéo programme bi équipe na la taxawal su booy def compétition dañ koy préparé si domaine yëpp le aspect yëpp préparation bi am nañu match préparation bu ñuy joué contre euh, en Coupe du Sénégal contre Génération Foot préparation la bu ñu ko mënee conti continuer pour euh, ñu préparer ñu lu gën baax est-ce match bi prévoir ngeen un peu yi xale yu bëri du dem test ci en Europe on va voir bu lu ñuy def mais daal lu ñu xalaat daal mooy euh, peut-être du ñu porte bi pour am benn élément de plus ñaari élément de plus mais daal effectif jàmba daal xale ñuy yëg pour pour essayer euh, wane seen lu ñu mun pour mun a jouer match yi ay gagné leen. justement pour euh, seen campagne africaine bi lan mooy objectif club bi. mooy gagné match bu nekk di qualifié parce que gën a métti métti métti ñu essayé gagné ko au moins pour jël wutaat beneen qualification pour jouer à beneen équipe pour encore ba euh, amal beneen qualification ba dugg si groupe bi loolu ñaan yàlla. dans premier temps daal mooy gagné ñaar match daal mooy suñu objectif principal. waa équipe bu jàmbaar yooyu war a dem kon Guinée joué ji ak équipe bu Guinée moo gën a wóor ndax Abdoulaye Diop nga ne di nu tuumaal li dana waxoon Gambie moom ci day xëy di nu yàqal euh, ñu waxtaanee nawetaan bi dinañu ko tëgg waaye dafay am passe sanitaire maanaam da nga yore carte de santé pour dugg ci stade yi mooy on moo jël dogal bu ni mel waaye dogal booba ci Linguère am na ñu ko nanguwut Baye Assane Diaw xiirtal ñàkku ñi yëngu ci nawetaan ngir ñu mën koo amal reen ji yenu na maana di kàdduy Abdou Cissé nekk capitaine ASC Deggo te bokk ci zone B bu Linguère. vraiment man dama koy rafetlu ko situation pandémie bi fu mu toll damay wax ni kon yoon na tey ñu exiger ko donc man defuma lu muy rafetlu ko wax dëgg yàlla jéem a respecté rek pass sanitaire. anam yi ñu ko doxalee nag nekkul lu ñuy rafetlu bu ñu sukkandikoo ci Maguette Thiam di supporter ci ASC dëkkandoo bu zone A bu Linguère. rafetlu wuma ko parce que jàpp naa ne condition boobu lañ waroon a jiital ne ah mën nañ football nawetaan ren kat waaye comme situation bi nii la demee mbas mi léegi nag pour ñu mën a commencer dara il faut équipe bu bëgg a bokk na joxe garantie ne dina mën a obliger ay nitam ñu ñàkku ji équipe bu ko def ñu valider sa candidature nangu sa réaffiliation ku ko nanguwul doo bokk su ko defee équipe yooyu def ko ñu xam ne ñoo engagé wu su ko defee nag ñu suivre le processus ñi ngànk nawetaan ñoom dañoo sax faf yaakaar ni dakkal ko ba jëmi jamono mooy li gën da Gaaj jiite zone bee bu Linguère. lu gënoon yomb loo xam ne ONCAV waroon na ko mën a def pour dimbale ñu mooy que ne nawetaan amul comme daaw sinon mun a nawetaan day am nan football comme ni nga xam ne noonu lañ daal footballé te ñëpp xam na ne fii ñu toll nii par rapport ak pandémie bi puisque dañuy éviter rassemblement yi yaakaar naa am na loo xam ni nii mënul nekk donc suñ ko bëggee def rek dina xaw a difficile lool lool lool lool ak ñun. donte ne ONCAV mi ngi sukkandiku ci joueurs yi supporters yi wala dirigeants yi ngir ñu ñàkku bëri na ñuy dund nawetaan ñu yaakaar ni amal ay nawetaan ren du mën a nekkaat bay Assane Diaw Linguère rajo Futur Média. tubarkal Ndiou. Diagne. tubarkal tubarkal ay ba daan na. maa ngi dem waaw. kon ba ci kanam alaaj mi ngi fi. dafa def rajo buissonnière encore. déet waay. alaaj mu ñëwee fu nga jox demande explication yaram xaw a sutante rek. <laughs> moom yaa ko ñëw. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. wàllum aada ak cosaan chronique culture bi ana Rocha lañ ci àndal. maa ngi leen di nuyu mbokk yi préfet bu Kolda tere na kankurang ni ki euh, ren ji ca département bi loolee ngir moytu rassemblement yi ndax ñettali euh, vague Covid 19 bi mu ngi wëy euh, ba tey mu di nag dogal boo xamante ne ñi yëngu ci wàllu kankurang bi meruñu ci comprendre nañ ko bu baax a baax daanaka sax ñu ngi woo ndaw yi ñu topp ndigal boobee reportage Abdoulaye Diallo ca Kolda. ngir dooleel xeexu mbas mi ci diwaanu Kolda préfet bu département bu Kolda moo daal di tere lépp li ajoo wàllu kankurang ndaxte saabu bu bi génnee dajaloo bu dul jeex moo koy topp ñu déglu si jaaja ja di préfet wu Kolda. lu tax ñu def ko mooy gis ngeen ni jamono yi mbas mi daanaka bëri na fii aussi Kolda aussi am na ay cas kilifa yi waxoon nañ ñu ko waxoon nañ ni war nañu éviter dajaloo yu bëri yi moo tax ma ne donc naa waxtaan ak euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy nekk ci association yooyu di yëngu ci affaire kankurang ñun amoon nañu yéene lever mesure bi nga xam ne moom la ñu jëloon bu yàgg pour interdire kankurang amoon nañu yéene donc euh, bàyyi kankurang mu génn mais jamono ji ñu nekk nii mënuñ ko def il faut ñu xaar ba situation bi normale. ñi fi ngànk wàllu kankurang bi ñooy rafetlu dogal bi ni mel Moussa Sow moo yor seen i kaddu. du question ne préfet dafa interdire mbas bee tax kankurang mënagul génn heure bi te je pense que fii bu ñu demee ba ay diir affaire bu wàññeeku préfet dina di jëlaat dogal kankurang bi ñëwaat fu mu fu mu nekkoon xale yi continuer seen activité ñun loolu lañ leen ñaan ñu bañ a défier autorité. ñoo ngi sàkku it nguur gi wasaare tere bi dañ fay faral di tàkk kankurang. am nay dëkk yoo xam ne nag dëkku kankurang la dëkk yu mel ni Sédhiou dëkk yu mel ni Mbour je sais que waa waa Kolda bu ñu gisee waa Mbour ñu ngi génnee wala ñu ngi ñu Sédhiou ñu ngi génnee ñoom aussi nañu mën a revendiquer. képp ku jalgati bi la tere bu boobaa boromam dina jàmmarloog waaye karange yi muy lu préfet bi xamle. ci wàllu euh, musique euh, Massané mu ngi euh, dellu si waat ak benn projet d'album artiste bi dina présenté ni ki tey ji ci ngoon fii ci Ndakaaru benn single bu bees bi mu dippee man ak yow mu di woy boo xamante ne fansam yi la ko jegleel diñ leen ci euh, dikkaat incha allah ci euh, beneen chronique culture di leen jaajëfal bu baax a baax ci déglu bi dig daje ëllëg incha allah. RFM